di Tawfekh Production ñoo ngi ak ki nga xamante ni mooy soxna Rama Diouf bokk ci ñi nga xamante ni ñooy doxal liggéeyu Touba ci kanam fa nga xamante ni moom mooy ndakaar ah, li nga xamante ne nag war nañ ko waxtaanee bëri na ci li nga xamante ne liggéeyu Touba ci kanam gis ngeen booba léegi bañ ko tàmbalee ah, ni muy ah, wëy di am doole saa su nekk li ñuy waxtaanee nag tey bokk na ci li nga xamante ni mooy wàllu massification bi nga xamante ni def nañ ko ci liggéeyu màggal gi ak liggéey bi nga xamante dafa gën a yokk ci jamono ji nga xamante ne lañ nekk ak mbooloo mi ñëw ci biir Touba Adama boo ñu mënee euh, defal ak gëstu ci li nga xamante ni wala benn tënk euh, ci fi ngeen toll ci massification ci euh, liggéeyu Touba ca kanam. mu doonoon mbégte ci jàkkaarloog yéen ci jotaay bu am solo bi Euh, ndaxte kenn weranteetul ne suñ ne màggalu Touba euh, Touba ci kanam da ciy am taxawaay bu am solo euh, rawatina ci wàllu massification ndaxte buñ ne Touba ci kanam bu doon mbaar la mën nañ ne massification mooy jën wi nga xam ne moo te mbaar mi kon nag bu ñu tijjee waxtaan wi ci massification loolu day doon mbégte mu yaatu ci ñun yàlla def ñu ciy jaajëfal aussi Serigne Bara Mbacke xel ko moom mi nga xam ne moo jiite massification bu Touba ca kanam Euh, ci euh, ab taxawaayam ak yaatal liggéey bi ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, noonu la ñuy jaajëfale tamit sëñ Cheikh Kharma mi nga xam ne moo jiite massification Dakar man mii ma nekk présidente bi topp ci moom. Euh, ma xam ne massification Dakar jamono ji ñu génn euh, comme da nga ne massification ak yaatal bi fu mu toll kon jafe naa ne mën nañoo doore ci massification Dakar bi nga xam ne moom lañu ñu yore euh, bi nga xamante ne nii nag safar gi teru na première safar ba 10 ba 10 ba ba 10 jours ci safar gi ci la ñu commencé woon suñu massification ci diwaanu Dakar yore oto ledd bi doore fu ci mel ni fu ci mel ni Nord Foire Euh, wër maanaam site foire bi yëpp euh, noonu lañ demee Géejawaay noonu lañ demee Parcelles euh, noonu lañ demee Kër Massar def ci collecte bu am solo nag waaye tamit teewul yaata laale liggéeyu Touba ca kanam ci biir Ndakaaru ndaxte bu ñu ne Touba ca kanam comme ni ma ko wax ci ndoxteel li rek massification moo yor liggéey bi lu ci mel ni Serigne Bara Mbacké moom mi nga xam ne moo jiite massification bi kenn werenteetul ay sorteem ay génn yoo xam ne daf koy def caravane bi nga xam ne massification da koy def di dem Tamba di nekk mu fay dem ngir yaatal liggéeyu Touba ci kanam euh, lu ci mel ni màggal gi tamit euh, gis nga investissement bi nga xam ne Touba ci kanam def na ko euh, lii lépp ci massification lay dugaat rek lu ci mel ni kees gi stand yu ndaw yi nga xam ne massification def na ko am nañ ci lu toll ni ñaar fukk ak juróom 25 lu ci mel ni tamit bologu safar gi daaw amoon nañ trente millions moo nekkoon objectif bi ñu atteindre ko ren tamit bëgg nañu am cinquante ndax boo jógee 30 jàpp na naa ne da ngay daal di yóotu euh, lu ko ëpp ndax liggéey Serigne Touba euh, tànki kanam la am waaye amul euh, tànki ginnaaw mi ngi noonu sëñ Mor foofu la ñu tolloogut ci massification bi comme bi suba la bés bi waa massification ñi ngi def taxawaay bu am solo yaatal liggéey bi kees yi foo ne ci Touba yaa ngi gis affiche Touba ci kanam yi loolu yëpp ci massification la bokk. ñuy wax ci li nga xamante ni moom mooy jamonoy màggal gi mu mel na euh, lu am solo loo a ngi ko def jamono ji ngir jàppale ñenn ñi nga xamante ni mën nañu wax ne euh, seen loxo euh, yeggul seen ginnaaw ak ñenn ñi nga xamante ni ndox mi dafa xawoon leen soxla tuuti ak taw bi fi nekk nii Touba ci kanam ban taxawaay la am ci ñooñ nga xamante ni jamono ji soxla nañu ndimbal ci li nga xamante moom mooy màggal macha allah sëñ Mor loolu mbégte la ñuy am ci àddu ci di ci jaajëfal Serigne Mourtala Fata moom mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam waaye tamit di jaajëfal soxna bu seen moom mi nga xam ne mooy euh, présidente bi topp ci Serigne Mourtala Fata euh, ñu ànd ko ñoom ak waa commission sociale yëpp jàmbaar yooyu nga xam ne euh, ñoom nelawuñu yend lu ñu fanaana lu ñu ndax taxawu rek dëkk bu sell bi di Touba. Touba ca kanam nag soci commission sociale dafa nekk pàcc mu am solo ci biir liggéey bi di liggéey liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp loxo euh, lu ci mel ni màggal gi tamit euh, commission sociale euh, lancé woon na ci ab jaayante lu ci mel ni comme social moom ni muy defee sociale tabaski di ko defee sociale korité bu màggal gi ñëwee tamit noonu la ciy amee ay taxawaay yemuñu rek ci jënd ay gel ak ay masque ak jàppale nit ñi waaye teewul dañoo am ñeenti waañ ci biir Touba bokk na ci Bébéré ak yeneen quartier yeneen gox ci biir Touba ñu amal fa ay waañ dem ba nga xamante nii rek ci ñi ko soxla la ndaxte euh, boo gisee Touba dafa am ay euh, nit ñoo xam ne dañoo bàyyi seen i dëkki maam bàyyi seen dëkki bàyyi ñëw ci dëkkub Serigne Touba bi te seen loxo jotul seen ginnaaw loolu nag commission sociale di ci bay waaram ci di leen taxawu ci faar na yépp bokk na ci di leen tabaxal ay dëkkuwaay waaye tamit bokk na ci di leen di leen taxaw di leen jox ab dund waaye bokk na ci tamit waañ yi nga xam ne commission sociale amal na ko ci màggal gi euh, ñu leen di taxaw waañ wu nekk fañ ko samp ak la ko wër fexe nañ ba ña dëkk danañ lekk danañ naan waaye duñu manqué dara tamit ci tu màggal ak Tuubaa gi ndaxte comme safax la ñu wax euh, ñëpp dañ cee war a yëg seen bopp loolu nag la la waa commission sociale teel a dégg euh, ba tax ñu ñu yaatal liggéey bi ci biir Tuubaa fas yéene néew di doole bu nekk ci biir Touba rek euh, ñu jox la nga lekk jox la nga naan waaye tamit teral la ngir ñu àndandoo euh, dundandoo bis bu sell bi nga xamante ne Cheikhul Khadim daf koo tegoon fu yaatoo yaatu. Touba Ca Kanam yi nga xamante ni Touba ñu bëri dañ koo bàyyi xel ci liggéey am solo ñuy def ci tabax ay structure ak yu ni mel euh, fa lañ toll jamono ji ci liggéey bi mais ndax am na projet yoo xamante ni boole ngeen ko ci affaire assainissement parce que jamono ji ñu wax ne Touba dafa amoon ay jafe-jafe ndox ak yu ni mel. très bien euh, loolu tamit xam nga jamono ji ñu toll moom ñi ngi naan assainissement bi léeg-léeg ñu ne euh, Touba ca kanam day sukkandiku ci station Selbek euh, yeneen tali yi nga xam ne defar na ko def ko arme de guerre ñu ne nañu xoolaat bu baax a baax ndax Touba ca kanam objectif am boo ko gisee di nga xam ne lii mu jot a liggéey du loo xam ne ñun dañ koy def arme de guerre ndax lu ndaw a ndaw ndaw la ci li nga xam ne moom la Touba ca kanam fas yéenee liggéey ci biir dëkk bu sell bi jamono ji ñu toll yaakaar naa ne di nga xam ne Touba ci kanam liggéey na liggéey bu am solo waaye tamit assainissement Touba ci kanam séqi na ay jéego ndaxte fu ci mel ni station sel bi euh, bu tawaan benn oto xalaatu fa jaar waaye léegi gis nga bu tawee lëkk bi li muy taataa fi Touba ca kanam defar oto yi nii lañ fay jaare amuñu lenn loo xam ne da leen di teqatal euh, ba ba mu tere leen a doxi seen i soxla lu ci demee noonu waa euh, commission euh, su commission nettoiement ñi ngi leen di jaajëfal ci jiitu sëñ Abo sëriñ Abo Ndiaye ñu doon ay jàmbaar ndaxte dëkk bi ku ne gis na taw bi assainissement moom dafa doon loo xam ne liggéey bu métti métti la waaye ñun taalibe sëñ Bamba ñun amuñu sañ-sañu benn yoon jàpp suñuy loxo ndaxte li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg rek saay su nekk ci la ñuy nekk ba tax na ñi ngi ànd ak waa sous commission euh, nettoiement Serigne Abo Ndiaye ak équipe boobu ba léegi moto pompe yi ñi ngi ci biir dëkk bi yemuñu sax ci ci ci pompe bi waaye oto yi oto yi euh, euh, oto yi nga xamante ne dañuy maye ay ndox camion yi ñi ngi ci dëkk bi fépp foo xam ne ñàkk na ndox ci dëkk bi rek Touba ca kanam ñi ngi ànd ak équipe di leen taxawu ngir màggal gi gën a ñoŋ waaye tamit gën a mucc ayib nekk nii ndax def jamono ji ngi gën a mën a yombal euh, yónni ñi nga xamante ne peut-être ñi ngi nekk à l'étranger ak yu ndax am na yeneen moyens yoo leen teg jamono ji ngir euh, au delà fi nga xamante ne moom mooy jënd blog yi ak yeneen moyens yoo xamante ne ñeneen ñi dañ mën di envoyer seen ay addiye saa su nekk ñu mën di dugg ci liggéey waaye ca kanam dafa yaatu ndaxte boo gisee waa jaspora bi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax baax di ci nuyu waale euh, Serigne Modou Diouf moom mi nga xam ne moo jiite euh, communication jaspora bi boo gisee Touba ca kanam mi ngi ci juróom-ñaar fukki réew jamono ji ñu toll. te réew yooyu ngay gis rek fépp fu ci nekk coordination bu dëgër moo fa nekk. boo xam ne ñoo fa nekkal Touba ca kanam euh, kon nag euh, mën naa ne Touba ca kanam ngir def ci sa àdd yi ak réew moo mën di nekk ci àdduna du jafe ndax jamono jii ngay waxee dëkk boo mën di nekk boo soxlaa mën nañ laa boole léegi ak coordinateur ba fa nekk wala coordinatrice ba fa nekk euh, pour nga mën a daal di jokkoo moom du doon sax lu yeex day doon ci ay minutes yu yu néew a néew néew rek nga daal di jokkoo ak ñoom ba foo bëgg a jaarale sa àddiya di nga ko fa jaarale euh, ñu profité ci euh, fii nga ñu toog tey jotaay bi waa diaspora bi ñoom ñoo fi war a amal ndaje mi tey pour wax rek pour firndeel rek li nga xam ne yaa ngi koy laaj waa diaspora bi léegi ci kanam rek boo fi dikkee di nga xam ne fii waa diaspora bi kenn ku nekk ak réew ma nga jógee te ku ci nekk membre yi Touba ca kanam lañ nekk ay responsable yoo xamante ne ku ci nekk yaa ngi yore euh, pàcc bu yaatoo yaatu ci liggéey bi di wax ne sëñ Mor liggéey bi yaatu na lool ci wàllu diaspora bi projet la ñuy xaaragum fi mu nekk nii projet d'envergure bu mag boo xamante ne fi mu nekk nii euh, bu bu paree nañ xam ne Touba ci kanam liggéey liggéey bu mag ci biir dëkk. Euh, projet bi ñuy xaar bokk na ci euh, lu ci mel ni université bi tey ji ginaaw université bi ko Serigne Mountakha lancé Touba ci kanam jër na téeméeri million jébbal ko Serigne Mountakha ba pare jël ci bâtiment boo xam ne R plus 3 bu fekkee 6 800 millions moo tax war a tabax bâtiment bi jamono ji ñu toll 300 millions et quelque duggagum na ci bâtiment bi événement bu mag la boo xamante ne mi ngi ci Touba ci kanam jàpp nañ ne jamono ji ñu toll sax mën nañ ne ay finition li ci pare moo ëpp li nga xam ne moo ci des kon yaakaar na ne loolu investissement bu mag la euh, boo xam ne Touba ci kanam amal euh, ma maa ngi fàtte léegi sax ndax xam naa yaa ci côté euh, dimbalante dimbalante gi naan commission santé ak sociale dañoo a lëkkaloo ndax dafa mel ni daanaka ñoo bokk ay mbir yoo xam ne Touba ci kanam poste de santé yi nga xam ne mi ngi koy tabax toll na ci six poste de santé poste de santé bu nekk mën nañ ne téeméeri million la ñuy xayma ci li nga xam ne équipement bi ak li koy liggéey lépp mën nañ ne poste de santé yi euh, ñeenti poste de santé yëpp daanaka ñi ngi fonctionné ndax kenn wéranteetul ñetti poste de santé yi euh, ca kanam tijjeendoo ci benn bëccëg jamono ji ñu génn loolu kenn wéran kenn kenn kenn mësu koo gis sëñ Mor mu nekk liggéey bu yaatoo ay investissement yu mag a mag a mag euh, ba investissement bi nga xam ne ñu ngi koy séentu ci Touba ci kanam bokk na ci assainissement Touba ci kanam bi Euh, Touba ca kanam bëgg na ci ay solution ndaxte ci la ñu nekk jamono ji ñu toll mais comme assainissement yombul te dafa nekk mbirum état ñi ngi ci di ci dugal suñu loxo ba fu ñu ci état fekk rek ñu ànd ci ak ñoom waaye tamit lépp lu ñuy defit ñu ngi ciy lëkkaloo ak euh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy état bi te yor dëkk bi euh, Touba ca kanam li mu yor ci ay projet bëri na sëñ Mor maanaam buñ doon lim mënuñu ne la bi wala baa wax Touba ca kanam defar dëkk bi moo ko yëkkati kon dafa mel ni kon Touba mooy suñu projet rek doon seq ak yéen jotaay bi euh, ndaxte euh, Touba ci kanam dafa doon association boo xamante ne nii euh, monde bee ko soxla jamono ji ñu toll ndaxte kuréel gi ni muy doxee ñi mu yéem bari na waaye nag maa ngi wax ne murid yi li ma leen di dénk rek mooy nañu gën a jàppaat kuréel gi ndaxte bëri na kuréel yu fi jaar nañu dëgër bopp ci Touba ci kanam buñ ci déglu kenn nañ ci gumba nañ ci lu nañ ko teel suñu bopp ndax suñu yëfi bopp la Euh, nit nag li nga xam ne da koo moom tey xool di gis lim koy jariñ kon nag war ngaa am euh, matak doo nungu dara di la ko yàqal wala ngay nunu lenn di la influencer euh, ba tax ngay am dut wala ngay am lenn ci kuréel gi kuréel gi sax dut dana ci jafe ndax Touba ca kanam moom laaj lu ñu mën la ñu wax waaye di ko def fu ñu xam te yaa wasuma sax bilan mois bi waaye ñun chaque jour dañuy def bilan kon yaakaar naa ne leeraay woowu moo woo murid ñi ci liggéey bi may wax ne murid yi nañu gën a wuy si Touba ci kanam waaye tamit gën a jàpp Touba ci kanam yaakaar ji ci Serigne Mountakha am war naa tax bépp murid boo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu nga gën a jàpp kuréel gii di kuréelu nooru daaree ni Touba ci kanam ñuy jaajëfal suñu jëwrin yeeg kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi di jaajëfal Serigne Mbaye Tène jàmbaari Serigne Bamba ji nga xam ne moom euh, communication Touba ci kanam ci màggal gi kenn wéranteetul taxawaayam bu yaatu boo xam ne mi ngi ko ciy amal euh, ñi nga xamante tamit yéen ñu fekk si woon waaye tamit am yitte ci tubaat ci kanam ñi nga xam ne noonu lay doxee jàngeen ngeen jëf dégg ngeen li nga xamante ni soxna si wax na ko ci liggéey bi nga xamante ni euh, Touba ci kanam bi ñu koy amal te mu mel ne ko liggéey boo xamante ni fës na si àdduna bi fës na fépp euh, lépp loo xamante def nañ gis ngeen euh, ay ay poste de santé yoo xamante defar nañ ko ak yenn yenn yoo xamante ne lépp ngir gën a mën a jox dayoo dëkk bi Touba dem sax ba léegi ñu bëri sax dañuy commencé di inspiré wu ci Touba ci kanam naan Tiwaawan ca kanam naan Kaw ca kanam donc mu mel ne kon liggéey bi nga xamante ni Touba ci kanam teg na ko méthodologie bi ñuy liggéey je pense que moo nekk meilleur bi nga xamante lañu mën def pour développer dëkk pour développer yi nga xamante ne boobu mooy yenn stru yenn euh, société yi donc loo xamante ne fi mu nekk nii ngeen ko ñoom ni ñu ko waxee ci wàllu massification ci nit ñi doxalee ngir mën a mën a gën a doxal liggéey bi donc euh, ñu nekkoon euh, fi nga xamante ni moom mooy bërëb bi nga xamante ni Touba ci kanam installé nañ ko fii ci kanam jumaa ji ngir nit ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw Touba ngir mën di xam liggéey yi nga xamante Touba koy amal ñu mën di toog fii ci ay ay conférence ci ay émission ñu mën di seetaan saa su nekk di xam liggéey bi nga xamante Touba ci kanam ñi ngi koy amal donc leen jaajëfal yéen ñi xamante ni yéen suivre